Yeah. bi dégg leen tuuti dégg leen tuuti salaamaaleykum wa rahmatulahi sëriñ bi sëñ Gana Messere mii laa lay ay seere ci moom bi ñëwee dama ko ne maa lay sëriñ bi ndax ay bokkam sa njaboot lañ baayam mooy magi Cheikh Mesere Cheikh Mesere baayama ñu dokk ci mbaakol waaye ba muy ndaw la ko yàlla dimbali woon mu teel a bëgg sëriñ bi teel a jeex ci sëriñ bi tàmbalee na ca ba muy jàng ka jéem dara la dàkkanteeloon boppam suñ gànn Mesere Maxtaar sëñ Modou Maxtaar moom sëñ Cheikh Obal la ko baayam jébbaloon bëgg bëggu bëgg sëñ Modou Maxtaar moo tax mu doon dàkkantal boppam sëñ sëñ sëñ Modou Maxtaar waaye yoon woowee ci la jaar di jéem a xam te lu mu di ko jéem a delloo ci sëriñ bi di ko jéem a gindee taalibe yi ci sëriñ bi ci biir réew mi te ba muy mën a dajale ñetti nit ba muy dajale fukki nit ba ba muy weesu foofa ñu di ko woo ci bitim réew fu mu fa dem itam waxam jëpp dara du ci génn sëriñ bi dara du ci génn jàngale sëriñ bi te lam xam ci sëriñ bi lépp yàlla di ko ci dimbale itam la muy wax nit ñi ña ngi koy dégg bu baax di ko jariñoo yoon woowu bu mu koy dënk ci la jaar ba bëgg dem ñu woo ko ci télé di ko waxtaan moom ci sëriñ bi waaye yàlla defal ko sëriñ bi sëriñ bi ci boppam moo ko ca gàttandoo takkal ko ci médaille mu rëy defal ko ci sac boo xam ne mos ñoo invité kenn ci télé ba mu am ko ca donte am na ñu ko ëpp xam-xam itam sëriñ bi fekke na ko ca fekkee boo xam ne mos ñu daa fekk kenn ci télé lañ fa woote jox ko ngir jëmmi sëriñ bi jox ko biyee Makka jox ko ñu xal lépp ñaar fukki million looy am woote joxe ko jëmmi sëriñ Touba rek a tax jeex gum jeex ci sëriñ gi gi rek la. sëriñ bi nee na dëggu gi ak dëggal gi. ak ak pasteef bu rëy bi. daa am pasteef bu boppam. sëriñ bi daa am bu boppam. boo xam ne moom moom moom yàllaa ko jagleel. sëriñ bi na sëriñ bi daa am pasteef boppam boo ko ko jagleel. boobu nag ku nekk ci moom. da am tawfeex ju rëy rëy kon sëñ Gana lépp ñu noonu. waaw dana dafa ànd ak mel mbokk ta mel mbokk moo xam ne. daa doon ci diine ji bëgg a dugg ci diine lislaam moog sëñ Gana ñoo ànd ba nga ne day ñëw ñu ñaanal ko mu dellu ci sëñ Abdou Lakhat mu tegtal ko li mu war a def kon yéen ñëpp léegi laa bokk baax na waa tàllal mi nii dafa duggagul ci lislaam ngir déglu gi muy déglu waxtaanu sëñ Gana ci sëñ Touba loolu moo ko am euh, xiirteel ba mu bëgg dugg ci lislaam ak jubal da doon taalibe moo tax mu ànd ak moom ngir ñëw nga ñaanal ko ñu won ko yoo bisimilah te tàllalal def tàllal tàllal sa loxo tàllalal tàllalal kon sëñ Abdou mi ngi nii waaw moom nañ ko yóbbu après da nga ñaanal ko rek yóbbu ko sëñ Abdou Lakram wuy ma nañ ko yóbbu sëñ Abdou Lakram mu ne nga dugal ko ci bana nga soog a ñëw ñaanal ko nga dem ci kee nee na nga dem ci seen lagam mu wax la nuy duggee ci islam mu noppi mu indiwaat la fii ci moom nga tàllal sa loxo moom sëriñ bi ñaanal la boppam dégg demal ànd nga demal ubbil ko kosa ubbil ko demal daa wax ni ñi maanaam soppe yi seen at yi soppe sëñ Gana yi ngeen dégloo tuuti ñu àggale leen seenub siyaare ci lañ nekk sëñ Gana da leen di jot leen seen at yi ci sëriñ bi ni nga koy jot bi ngir sëriñ bi defal leen ko liggéey bi ngir sëriñ bi gën noo fàggul noo àndandoo liggéeyal sëriñ bi ban bokk tawfeexi sëriñ bi loolu rek la nu sëriñ bi fàggul te mooy li am solo ci kon ngeen amuk daloo ko dégloo daa wax ne ñi ma àndal xaadim waaw xaadim di xaritam di léppam di ci lépp nag ci liggéey sëñ Tuubaa bi waaw waaw moom yi moo ko moom ànd ak sëriñ Gana Messere sëriñ Gana mi ngi ne ci sëriñ bi jox na ko seen i addiye wax na ko seen taxawaay ak seen yitte ak seen pëstéer sëriñ Gana sëriñ bi nee na ngi lay sant di la gërëm ak mbooloo mi nga àndal lépp di am mbégte lool ci ànd bi ngeen ànd ak moom ci liggéey sëriñ Tuubaa bi xam na sa yitte xam na sa taxawaay xam na sa pëstéer li ngay liggéey ci yoon bi xam na lépp nee na na nga dalal sa xel te wéttalikoo sëriñ bi nee na nag mu ngi fas yéene feddal ay laxasaayam ànd ko ak yéen mi ngi leen di bàyyi xel bu baax di leen ñaanal yéen ñëpp suñ borom dimbali ñu bañ dajee tawféex sëriñ Touba seen lépp gën a yomb seen lépp gën a yëwén seen lépp gën a barkeel kon na ñëpp tàllal seen loxo tax amiin tal waaye bëgg na ko fas si ñaan li ma doon seere rek sëriñ sama digg moom laa àggutoon dara pour di laa ji laal ndax dafa yàgg am ci man cofeel moo tax ma ne kon damay bokk ci soppeem yi ba may tuddi ay bis yu muy def bis yi daje duñ bëri mu di ma tuddi ay bis te saam di ma seereel loo xam ne man dama ab soññee laa ko defoon sama bopp di wax ne gis na ne ñu bari fi jamono toll wala ma tolloog ñoom ci jamono am na lu ñuy woo loo xam ne moom daa gis ne loolu yitteelu ma mu tellement seeral na sëriñ bi rek mi yitteel mu bëgguma dara ci li ñuy bëgg sëriñ bi laa bëgg mu seeral ma ko ci biir réew mi ak bitim réew loolu ab soññee la ci boo xam ne faaw ma seeral ko te moom gànn mii moo ko doon seeral ci man bu yàgg loolu rek laa ci dox kon soo koy waay toll rek nga tàllal sa loxo te wax amiin kon waay ko nga ko fas sa ñaan da ngeen tàbbee ci kër gi rek nga xam ne ci toogal may fàllu si mu jël tuuti mu jël ko waaw toogal toogal seen loxo bismillah nee leen amin rek te waay bëgg na ko fas ñaan gi amin amin ne leen amiin rek te lu waay bëgg na si ñaan gi amiin amiin jërë ngeen jëf